niñ ko fu ñuy jëlee luñ ko tabaxee xamoo xamuñ dara jumaa ji fu ñuy jël luñ ko tabax te taalib yee ko war a tabax nangam ak naa bàyyi ne jumaa waaw ba mu ñëwee màkka ko rëdd bàyyi ne jumaa ji ba ma tolloo ca màkka ca xarafaat la seen sororo yi waaw ku ko tabax dana tabaxu ku ko tabaxu dana tabaxu moo tax sëriñ Fallu Mbàkke radiallahu anhu dafa am benn taalibeem bu dem ca moom tooga moom ne ko sëriñ Fallu mu ne ko am mu ne ko hee maa héemu mu ne ko am mu ne ko Sidi Ibra jumaa jam rëdd ki mo rëy xol jumaa jooju de mënu ko pereel ci àddina mënu ko pereel ci ta àllaaxira taalibe mi lim xam ci taalibe yëpp liñ xam ci xalal mën nañ ko ci rete du tax jumaa ji àgg jumaa jooju du àgg ci àddina bi ñu nekk ndax fekk mm, sëriñ Fallu mu nga tàllaloon tànk bi mu ko euh, kan nga wax mu ne ko Seydi Ibrahima mu ne ko sidi ibrahim mu ne ko ah. mu ne ko moom nga wax mu ko ah. fekk sëriñ fallo ngi bal tàllaloon tànkam mu ne ko xaaral ma bank suma tànk mu banque tàllanko ba ne ko xaaral ma bank suma tànk bi bala ci fondation bi de jaar kooku su bëggoon a tabax àddina bi yëpp dana ko tabax waaw xaaral ma banque suma tànk bi bala ci fondation bi da jaar moo tax na loo mu ne bi nga xamee ne rëdd nañ wakk ba ñuy daloo rëddaat jumaa ji 1950 bi mu ne keroog bàyyi dafa all de samaawo da war jumaa ji ñàkk tooy xëpp sëñ Fallou Mbacke ngi fi Saïdou Nour Tall ñoo am ma Seydou Medina Gounass Thierno Baba baaba um, Kër Thierno dégg nga euh, Baye Abdou Aziz Dabakhi dégg nga Baye Serigne Mansour ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoom sëñ Fallou mu murid yeeg ñëpp a ngi fi. kenn desut ci këru dina yi mu ne bàyyi bàyyi xaal rek de wër jumaa ji ndeysaan de de de sikka rek di sama doom yi topp ko ñoom Moxtaar ñoom Serigne Màkke ñoom Mouhamad Nasir ñoom Mouhamad Hadi ñëpp topp ko de ko awu ndeysaan ba mu jigi bañ noppee Seydou Notaar dafa aal de jooy na ko bàyyi sikkarul sikkarul sa doom yi awu la sikkarul sa doom yi awu la mu ne bañ bañ bañ eh, dalooyee bañ kiyee nag bañ rëddaate jumaa ji cinquante huit noonu nag eh, am na kilifa comme ci télé la wax am na kilifa gu sàkkoon ci bàyyi pour mu teg xeer bu jëkk bi dégg nga bàyyi nag dafa bëri kersa mun koo gàntal waaye daal waaye bañ demee ba ca fajar ga bañ ba ñu tëdd bañ mu ne suma bàyyi na trois heures ci guddi la ko bàyyi woo mu ne ko Ibra Lo mu ne ko am mu ne ko demal xeer wañ tegoon xeeru jumaa bi wàqi ko Lo dafa am lu rëy ci bàyyi de mu na ko wàqi ko wàqi ko ba jot ko na nga ko wàqi ba jot ko nga faxas ko ba mu set wàqi ko ba jot ko dégg nga mu ne bala ñoo julli fajar na nga ko wàqi mun sama baye mune mu nga dem 3 heures ci guddi dem de gas xeer wa mune dafa xóot moy gas da daajati da daajati da daajati ba baye romb ko da dugg ci jumaa ji di julli de julli ci fajar bay salatu bay salatu ba julli bay sëlmal bay selmal rek fa la doga meuna génne xeer bi ni génne xeer bi rek baye ñëw nak ne ko ngobal xeer bi ngob ko bu baax mu ngob ko bu baax baye teye ci mbagam mi ne ko waxal bismillahi wa minallahi wa fillahi wa billahi wa ala alallaahi tawakkaltu alal hayyi laa hawla wala quwwata illa billahi al azim mu ne loolu la loolu loolu loolu loolu la sampee xeero te moom moo ko samp ci loxoom bismillahi wa wa fillaahi bismillahi wa minallaahi wa fillaahi wa billaahi wa alallahi tawakkaltu alal hayyi laa hawla wala quwwata illa billahi al azim mu ne loolu la ko wax loo muy ko wax par baat ba mu paree ba mu xagsee ci laa hawla wala quwwata illa billahi al azim mu ne ko dugal a tegal mu tekk bàyyi xam na fu may teg tànkam radiallahu taala anhu moo tax nag bi ñu kiyee si jumaa ji itam baraam yi ci nekkoon da liggéey ci jumaa ji yëpp eh, bàyyi ñoom la ko joxoon moom la ko joxoon moom sëriñ kab sëriñ mi suma bàyyi Ibrahima mi moom la joxoon mbooleem liggéey jumaa ji feer yeeg ciment bi ñëw ci jumaa jeeg mm, uh, weñ yi ñëw ci jumaa jeeg uh, barxaam yi këram lañ nekk moo leen di toggal fa la ñuy lekkee ndax moo doon jiiti barxaam yi parce que moom bàyyi lañ ko tuddee moo tax moo doon jiiti barxaam yi ba xam na sax ñoo xam ne dañoo bàbbeeku bàyyi xootee ne képp kuñ ko tuddee rek muy gune muy mag na ñëw même bu bootu sax nañ ko feral indi ko bu am na ñoo xam ne sax seen xëraay amuñ doom ju tudd barxaam waaye dañoo jël seen doom yi rek indi leen ànd ak liggéey liggéey baay xam naa ci ñu bari ñoo xam ne tudduñu woon barxam sax ti nekkoon suma kër baay waaye bañ ne barxam rek ñoom ñëpp ñoom ñu bëgg a tudd barxam pour ñëw liggéey si ci jumaa yi ma Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu bañ demee nag euh, baa bi yore jumaa ji te baay bu la dénkee dara feeg yàqoo ko du ko nangu ci sa loxo man xaw ma kum dénk dara sax nangu ko ci sa loxo même boo ko doon yàq xaw ma kum dénk dara may nangu ko sa loxo dem na ba nga xam ne benn architecte ñëw na fi de seet jumaa ji euh, euh, fi ñuy jàngee dog bi noonu mu xool ko gis xam nga foo pieds yi dañoo soree mu xool ko xool ko ba mu yàgg ne fii dañ fi defaat beneen pied ndax lii wóorut dansé la dañ fi defaat beneen pied sama bàyyi bi taxaw ne fii kenn du ko gas. te ñu ne def bee ko gas kenn du ko gas xamuñ bàyyi fa def sekk rek xamuñ nu mu demee mu ne waaye kenn du ko gas. ñu wax wax mu ne kenn du ko ga architecte bi wax xuloog moom mu ne kenn du ko ga ñu dem ca bàyyi bàyyi ñëw xool xool ba mu yàgg na def leen li Ibra loo wax waaw def leen li Ibra loo wax moo tax foofu ba léegi kenn defu ko kenn kenn kenn eh, kenn defut papier dégg nga kenn defu benn poto moo tax nag ndeysaan eh, mu ne keroog bañ 58 nag bañ demee ba 1958 ci la bàyyi doon yaatalaat jumaa ji nag da ko rëddaat beneen rëdd bu bees ci lañ toxalee minbar bi nele bàyyi minbar bu minbar bu njëkk bi fii muy sémbul comme ni nga xam ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ca minbaram ba ndax ba mooy toxal yaatal jumaa am ja dafa bàyyi minbar bu njëkk ba bàyyi tamit dafay roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba am Cheikh Mouhamadou Nasir wax ma ne minbar bi njëkk bi mu ne lépp bàyyi wax na ko ne lépp lu fa nit ñaan mu nangu bàyyi wax na ma ma Mamadou Nasir moo téye man ci suma loxo ne ma oustaz Keba ma ne ko am ne ma tey ma wax la kéemtaan ma ne ko am ne ma bàyyi wax na ma ne juróom-ñaari place ngi lépp lu fa nit ñaan rek yàlla nangu sa ñaan ma ne ko ban ak ban mu ne min bar bu njëkk bii lépp lu fi ñu ñaan yàlla dina ko nangu mu ne ak ban mu ne bayaal bii bayaalu Medina bi fi ñuy tàgg taggee yonent di sallallahu alayhi bàyyi ne na lépp lu fa nit ñaan yàlla dana ko nangu ñu ne ak ban mu ne néegam bu gàtt bii mu dëkk képp ku fa ñaan loo fa ñaan yàlla dina ko nangu fa ñuy jullee hay day nii muy bayaal balee ca saam ku fa ñaan yàlla mu ne yàlla dana nangu sa ñaan juróomeel mooy école arabe bi mu ne ku fa jàngee dana barke ku fa ñaan yàlla dana nangu sa juróom beneen bi mu ne tey bañ seen la ku fa ñaan yàlla fam juddoo ku fa ñaan yàlla yàlla dana nangu sa ñaan mu ne juróom ñaareel bi nag mooy bi xabri yootel abda mal kullu xayara suma xabru bi bu ma génnee àddina fa lu fa waaye ñaan rek yàlla dana ko ko jox mooy juróom ñaari place yooyu moo yàlla baaxee na ko maa la xam man af afla illa bi ti man afla ñi ànd ak moom texe nañ ndax du texe mukk lu dul ko ànd ak texe kenn mënta texe lu dul nga ànd ak ku texe